asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu jàkkaarloo ak ñun ci Lutte TV point com ak Xaas TV ñoo ngi leen nuyu bu baax baax di leen ziare ki ñu toogal nag yaakaar naa ni yéen ñëpp xam ngeen ko muy Bébé Saloum ñëw fii Malika fekk ko fi kër sëñ Ablaye Diop ñoo fas yéene waxtaan ak moom rek ndax yaakaar naa ne lii gëj naa am gis nañ sortie yi mu def sax léegi bariwul gis nañ tamit champion la bëri na ay combat yu bëree baree baree bëri mais fi ñuy xaar Bébé Saloum ba léegi eggagu fa ndax mbir yu bari fii tey moo leen jox seen première défaite lan moo tax Bébé Saloum boobaak léegi eggagul ci moom la ci adversaire yi la ci promoteur yi la loolu yëpp fas nañ ci yéen waxtaan ak moom ak instant bi lan la promoteur yi di ko wax dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokki yëpp ko defee ñu waxtaan tuuti Mour maa ngi lay nuyu borom Saloum. waaw Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant seexul xaddim sunu yaakaar tey ak ëllëg di doyloo Cheikh Ibra di sant sama sang ba Serigne. Abdul Karim Mbàkke naaru maam Awa Faye di sang di sant sama sangu bi toog Abdoulaye Diop xaas ah, nekk ci man koo xam ne dina naqaree misaal xëy na nag ude matul seede ci bay bu feebar lu ci wax ñu ne der baa tax ndax nag bi may doog a génn xatoon na lool ma fekk fi yu mitti mu woo ma yëkkati xaalis bu bari ni ma demal lijjanti sa bopp yamulak man foofu. képp kuy nit ku baax rek mi ngi may boole ak moom xëcc ma ci wetam bëggul ma xiif bëggul ma mar bëggul ma rafle entre entraîné dong la ma sant nekk ci ak man kon maa ngi koy ñaanal gudd fanu jinne wéru malaaka dole góor yàlla moo ak njabootam gépp ci doole Cheikhul Khadim mu yaakaar Lamine maa ngi nuyu ñi ci hôpital yi di leen ñaanal sama borom fëgg seen bopp di nuyu ñi ci kaso yi parce que man dama jàppe sama boobu détenu ba léegi ndax ñeewante gu leen ñeewante gëw ma ni kenn def na dem fa ndax natt ñëwoon na ci man ci lu ma yëgul tinul moo tax damay jàpp ñëpp nattoo ñëw ci ñoom rek maa ngi ñaanal kuy détenir rek lépp oyof ci yow waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama mbokk Baay Faal waaw di gërëmaat Abdoulaye Diop xaas bu baax suma sang suma xarit di nit ku baax di nitu nit ni yemul ci man dong de waaw nen bi ma fekk ñu may nees daal laa diw ci sama mburu di ko waxtaanee. macha waaye xam naa ne du man dong. nitu ñëpp la waaw. da wax wax bu am solo wax bu doy waar mooy ba léegi deetu ni nga jàppee sa bopp wax boobu lan nga yëg bay wax noonu. dama ñeewante nga fa nekk rawatina ñaari axtul làmb ya fa des muy Bébé Diène Kaw Cissé ma ñeewante leen lool ndax la mu saf kooku ma ca ko xam. Mm-hmm. ñu yendal la ci benn kër kese tëj la fa donte dañ laa tëj ci kër gi daa métti. waxuma laa kasoog ay ayibam lii da koy mën a wax lii danga koy misaal moo tax ma ñeewante leen jàppee sama bopp détenu ba keroog ma leen di gis ñu génn ndax ñetti jooy laa jooy ci kaso bi màggal joteeg la ma daan sasoo euh, ñu jaar man foo xam ne ah sama yaram daw na ndax sëñ Tuubaa rek laa am beneen jooy bi bi ma yoree sama saak génn génnaale ñaari kàddu yu ma mënta dëggal muy ba ñaari ma fa bàyyi muy Kaaw Cissé ak Bébé Diène ma génn génn saf ma dara donte bokkuma ak ñoom lenn dama bokk ak ñoom ndey ak baay ndax ñoo bokk làmb su licence ak bokk lu mu jar samay mbokk muslim lañ ah kon am naa droit ñeewante leen ñeewante ña fa nekk ñëpp lii waral ma jàppee sama boobu dëdd ni ba léegi ndax Sénégal boo dee wax dëgg ñu la dëgg ci sa tànk boo dëggoo ñu dëggate la te lu ay kàcc mën a jënd muy përëm billaay boo waxee dëgg jënd ci wurus ak ngalam lii mooy sama digg ak jaam ñi ndax mosuma saaga nit mosuma dépassé nit mais dëgg yàlla ji may wax jaam ñi mm-hmm. naa feq yi looloo leen sonal waaw dëgg jii nag su may am mm-hmm. ah moo may tax a bari la su may ñàkk xam naa ne moo may xañ mm-hmm. sëñ Abdoulaye Diop xaas di dëgg la gis ci man ma di ko wax te or du ko moom i teggin mu xëcc ma ak yërmandeem di ma dimbali. bébé Saloum yaa ko wax sànq nga ni bébé Diène ak Kaaw Cissé bu dal fort da nga leen ñeewantal ndax da jot a nekkante foofu ak ak Kaaw Cissé bébé Diène moom amuñu sikki sàkk mais Kaaw Cissé ndax nekkante ngeen xam nga Lamine dama fee xawoon a taalif lu am solo hmm. ndax dama ni man doomu yaay soxna Xadika ñu ngi ma fekk Malika hmm. jàpp yóbbu Kër Massar jël sama yëf wasaare xiyaar ko xibaar ko ñëpp jot ci amaana muy dëgg mbaamu bañ doon dëgg kenn xamul ñu téema fa ñett ci ay bis ñu naan ko ñetti fan ma defe ni fa lay yem ñu ne ñu may yóbbu géejawaay ma defe ni dana fa fekk samay waay maa ngi ko fekk jeeñ waay ju ñu wax ma xabari maa ngi ko fekk mu tiim ca lu bari laaj ma ci samay kàddu bind ko ci ay kàggoom ma nga yor bigam bu sama franc kayitam gu ñetti dërëm la ma ko wax la ci bind ni ma demal toog dinañ la xaar nañ la woo ba ma fa jógee ñu solal ma kap yóbbu ma kap ma ne wel ni ma fa kap ma mel ne wel jaaxle xaw ma loolu ma muñee ko Serigne Touba ndax bu ma duggee kaso mbégte lay doon ci man surtout maa nag ñu tooñ ma ku ne di ci bind ku ne di ci wax ma juumloo ñëpp ni mu leen juumloo mooy loo fekkewul ma toog ca seede ah ma defe ni fa lay yem ñu simil ma kap ba solal ma xaftaan jubag man si bi xutaan ma fa demee maa ngi fa fekk ñuy reetaan ba mel ni kuñ taan xëy na muy lu ñu miin mbaa luñ sañ ta bañ ma defe ni fa lay yem ñu jëleeti ma fa sumi xaftaan ba dugal ma ci oto bés uteeg man rëbës ma def fa ay bés sama yaram nangotul sama xel dajatul mu jural ma tawati xel yóbbu ma ab pavillon spécial yëf yi def may signal ma tànnoon doom yóbbu daara ja pour mu wattu alxuraan may ñaan bu koy mokkal yàlla na sama borom dogal ji natt dootuma dal maa kulluhum wa salaam. ceegi ci sa biir wax taalif bi nga xamante ne def nga ko jàpp naa ci ni dem nga Cap Manuel dem nga Sébikotane dem nga Rebeuss teere fële nga xamante ne moom mooy pavillon spécial. ci diggante yooyu noonu ban moo la ci gën a marqué ci ñeenti bërëb yooyu nga xamante ne dem nga fa. ñeenti bërëb yëpp manqué manqué wu ma. marqué wu ma. nga lan moo ñu xëy jàpp ma ci lu sama yoon nekkut may gor gu set wecc mu yàgg mitti nag musuma jaay sama ngor man Lamine nelaw na ci ay karo taw di taw sama karo ndax aw ma fu ma dëkk ko aw woon fu ma nekk ku mën a muñ loolu doo dem ba Serigne Touba di la dimbali ngay jaay sa ngor barke Cheikhul Khadim ñu tuumaal ma muy alalu gor nattu it muy alalu jullit ma boole yëpp nangu rek dem tuddee tëddee ko yàlla kese doyloo sang borom di ci gërëm Gris Bordeaux ndax daj na ci lu ne di ci gërëm Malick Thiandoum di ci gërëm suma sang suma xarit Abdoulaye Diop Xaas jàpp na ci ak nit ñu baax ñu fi ne ñëpp wax dëgg yàlla. premier jour Cap metti ci man lool ndax damay Baay Faal nag am na lool xajul ci man quoi waaye dama sàbbal sans borom doyloo Serigne Touba rek nag daal di koy muñee góor ñu ma fa fekk ndax dama ni góor du yërëm góor. comme tuuma bi agsi na nañ ko muñee Serigne Touba bis dina jot mu jeex. Mm-hmm. nga nekkoon ak ñaata ñaata ñoo fa nekkoon. Lamine ndax bu ma duggee ci biir kaso duñ ma jël siwaat la ma fa gis su ma ko dee wax damay xabtalu quoi mm-hmm. nañ jéggi loolu ndax su ma yërmande daa bëri ca ñooña. Mm-hmm. ñoo ma fa bàyyi chaque jour ma ñeewante leen. nañ jàpp ne daal nattu ñëwoon na jaar naa fa anyway quoi. prison la boo xamante ne wute na ak rëbës wala camp pénal parce que la fa am amul fenn. Lamine kër gi nga dëkk ñu tëj la fa suba ba ngoon yi la doo génn ci mbedd mi daa métti. Mm. waxuma la foo bokkak xam nga téeméeri nag. Mm. benn yatta leen di sàmm. waaye téeméeri nit. téeméeri yatta leen di sàmm. benn néeg nga boole fi ñatt téeméeri nit ku nekk ak jikkoom suñu ne la day yomb dañ lay nax loolu rek doy na. loolu am na Lamine loolu doy na. lan moo waral ñu jëlee la foofu yóbbu la yóbbu la Sébikotane ndax wax nañ la ko. yëfi kaso la xëy na saa yu su la dara di bëgg leer fii ñu toxal la feneen. Hmm. su la dara bëgg a leer fii ñu toxal la feneen xëy na noonu lay demee rek loolu laa yaakaar. Hmm. waaw. nga dund ba nekk fa ak sa sa sa sa rakk Bébé hmm. nan ngeen nekkee woon. amitié bu am solo amitié bu neex ndax dama mel ni jàppeetuma ko sax rakk. sàmba sama doom ja ca daara ja laa ko jàppee. ma doon ñaan sax sans borom dogal ñu boole taxañ ay mbiram moo kaaw siise yan ma ko ñoom ñu génn libre su mënoon a ne dama naan leen nañ ma defal loolu ngir ma jaamoo ko Sëñ Tuubaa waaw far loolu munu nekk ñu nekk fa di entraîner doom luñ buñ ñu lekk ñu lekk gu baax ñëwalee muy ay mbokkam indi ko mbaa samay mbokk ñu bokk. kon da dañoo dend chambre bokkuñ chambre. mais comme ñoo bokk chambre ndax amul jour bu mu dul dugg sama lal tëdd amul jour mu dul dugg lalam tëdd. ñun ñaar ñëpp tawat yóbbu woon ne pavillon spécial mais bi ñu nekk 100 mètres tamit moom moom 49 la nekk man cinquante mm-hmm. waaw mais chaque cours mun nañ gisee mm-hmm. waaw. lan ngeen nekkoon ak garde yi ndax demoon nañ ba comprendre leen di leen may ngeen di dem entraîner te du nekk seen heure euh, seen heure kii génn. non loolu xëy na dañoo xam ne ay sportif lañ tëddin bi métti na toog bi métti na te dañoo war a def carrière nag mm-hmm. même buñ tooñoon baa ñu rey nit it mun na nekk njuum te waxuma laa defuñu waxuñu ñu tuumaal ñu nu ah suñuy privilège nag ñu xaw bu ñu joxul lépp ñu am lu ñu ci jox xëy na noonu la demee ñu may ñu intense suñuy entraîné te entraîné bi heure bi ngay génn ngay entraîné newul dañ lay tijji bàyyi say morom déedéet heure bi ngay génn ci ngay entraîné waaw. kon ku joxuñu joxuñu leen woon privilège bu ñu joxul ñi ngeen fa nekk. déedéet yaa ngi ñëpp a fay am joxuñ la ko loolu kenn du la ko jox. Mm-hmm. waaw garde yi garde yi ñun ak ñoom sequñoo ñoom dara ndax ay ndénkaan lañ ñoom tëjuñ ñu dañ ñu leen a dénk doo leen wan luy tax ñu di la yab mbaa nga di leen di yab yemal ak ñoom fi nga war a yab parce que bukki bu dabee ponkal ca doxin wala koo ci xam ne li nga xëy di ndekkee mun naa am mu mat salaire am jàmm rek ngeen war a séq waaw te ñun ay Baay Faal lañ fu ñu dem mun nañ faa ne jaan mun nañoo dëkk ak moom dundumaat ndax yoon muy watuy jaar dañuy watu jaar weneen yoon mu dem ci yoonam ñu dem suñu yoon waaw ndax dañu bëri naa ci ay xarit. dañ may woo ba ci chef de cour yi nga xamante ni jaar naa ci ñoom. seex na ak ñoom tamit jàmm ak teraanga ju tollook ba tey ñu ngi may ñu ngi may woo may déggante ñoom waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. bi nga xamante ni woo nañ la ni tey ngay ñibbi loolu lu la waaye wala xamoon nga ni bu yàggul dara dara dinañ la wane la waaw xamoon naa ne dinaa ñibbi ndax dëgg du maasu fen bis dina jot dëgg leer ñu ba mu ñibbi li doon metti samay mbokk. li doon metti samay soppe li doon metti ñeen ñi mooy ñu ne maa def waaye ñoo ma téye juróom-ñeenti weer ñoom ñi ma téye demuñ sama kër joxal ma sama njaboot cent sama jabar am doom ci ginnaaw doom dellu ma dund yu metti ñoom ñoo ma ko teg wëlbati ko jox ma non-lieu xam nga lu non-lieu di tekki jàng nga kon dèjà moo tax ma la juumloon nañ ñu bari ndax presse bi bindal nañ ma fi phobie bindal nañ ma fi mercure nee nañ sama jabar daw naa ak maletu xaalis lu nañu wax ko moo tax ma ne presse tamit nañ seet li ñuy def ndax rey nit dundalee nit wóorut wax ci nit ayib ngir sa yëf jar mm-hmm. nga pare dundalee ko sa njaboot boo fajul ren déwén di nga faj na ñuy daw loolu mm-hmm. ndax gis dafa wala leer dégg dafa war a xóot Lamine yàlla na jàmm yàgg. mais li nga wax nii révélation la parce que man loolu mosuma ko yëg te yaakaar naa ne Xaarim Njaay mii mu ngi koy soog a dégg nga ne si diggante bi sa jabar am doom bi dellu sama jabar dafa am doom doom bi fanaan bët set mu dem xam naa day doomu gor mënut a fekkee natti papaam ya mu delluwaat mais suñ tubaab dinañu ko delloosil. information mu diis mu metti lool ndax nag sa jabar wéet ndax sa sama sama ñaari doom yi ndaw rek la nekkal sàmbaa nga daara ja ndax li ma raw ci alxuraan laa bëgg sama doom dabul ma ko ndax ñun ay taal bi suñ lañ ah ba ma ko fa fekkee ca daara ja muy jàng alxuraan ak xasida dama kontaan ndax man kenn laa ki ma gën a bëgg Serigne Touba ak ki durus xasida yi sellal ko ku dul kooku dara dawoo sama yaram alu Serigne Touba laa ku nangu nattu laa ku mën a muñ ay dogul sans borom laa ndax ruq bi xat na lool kenn gisuma buntu këram ku dul buntu kër ab Ablaye Diop xaas na génn ci télé bi wax ko dama kër kenn te gars yi nag xam luñ mën mën nañ laa jënd la fas yaa biir mais duñ la góble bu xiifee te ngan ko yàqu gu nga defaru ko Lamine. yàlla na jàmm yàgg këll kuy jullit rek maa ngi ñaan yàlla bu la gaaru jamono dab ndax nit ñi nii la ñu ànd ak yow boo mënee ñu topp la boo feebaree ñu daw la boo dee ñu fàtte la fu ñu toll di la jéemal bu ñu mënul ci yow dara yàq sab der benn télé daa ñëw ci man barki dem ni ma dama bëgg nu waxtaan ma lay fay dootoo wax ci benn télé bu dul man ma ne ko man alalu nit ñi la te comme ñenn ñi dañuy déglu samay kàddu man ay kilifa dañ may woo naan ma li ngay wax ndeysaan yow doo mbër te wax nañ dëgg du ma mbër yoruma xol bi yoruma jëf ja waaye yàlla ma ko nattoo ak bëggoon a teral suma yaay gëstu woon di ko gis ci coono Aliou Seras magu rakku Pape mii moo ma jàngal bëre di suma xaritu benn bakkan tuddee ko doom rek laa ko defagul te dinaa ko def ci kàttanu yàlla léegi nag dafa am yoo xam ne. boo tollee ci jafe-jafe da nga leen di bëgg gis ndax lu tuut li la yàlla doon dénk ñoom nga ko doon bokkal mm-hmm. mais nga nekk ci ruq bu xat gëstu doo gis kenn du sa ñaari doom yu jigéenu ndaw ak sa soxna mu nekk jàmbaar ju mën a muñ. mu ñëw visite. Euh, boobu dafa fekk mu nekk en état de grossesse te xam naa ak ñeewoon tayam ndax bi mu njëkk a dégg arrêté nañ ma kër ma saal daa lakk boppam ndax daa tiit xamul ci boroom këram loolu ma woo ni ko ndey nooy dundee yëf yi mm-hmm. mu ni ma. su ma fi doon dee ñu ma fiy suul wala ñuy dëpp sama yax it dinaa la xaar ba nga ñëw su ma doon dundee suuf duma dem kër kenn ñaan ko lu ma ruwee noonu la fa toogee changé wul toogaanam ba ma ñëw te xam naa ko dëgg yàlla ma génn mu metti trop nag gisuma kenn kenn kenn kenn kenn ma gesoo nag sang bu ñuy wax Abdoulaye Diop xaas woo ma wool ma boppam li gën a neex ci ndimbal da ngay dem ci nit li may wax ci politiciens yi léeg-léeg di leen dal gis nga buñ la waree jox xaalis ñeenti hervé lay doon laaj ma hervé yi jour bi mu lay njëkk a jox danga fay dajeeg mbooloo moo xam da leen war a rencontré ñaanal leen sa mbirum day am combat identifier boppam ci yow ñooñu yóbbaale diw de day jàppale sa waay mu génn dee la jox la di millions passé nii la jeudi ñëwaat fi maa ngi toj seen secret ñoom di déglu ma bu baax jeudi boo fay ñëwaat peuple am nga fay fekk waa koñam ay sénébeuram du ñu la sawaay néew fi ak sil toog lañ lay wax photo woog yow teg caayin sawaay nga laanam ñu la daa génn daa am réunion urgent woo ko nga woo ko dalay décroché ba tey ñu la bàyyi président moo waxoon ñu dem fii naa maki nangam mercredi ñëw fa mercredi am na ñeneen ñoo fay fekkaat bu ñeenti bët dajee ci benn mbubu Pape Sarr bi mënatu am mim ni couleur bii la waaw léegi nag bu fa ñëw ñëpp dajee ni sawaay de chaque jour day dem kër sawaay da koy jàppale boobu it dalay joxaat RV joxaat la paas beneen jour bi doo ko woo moo lay woo ndax day fekk euh, conseil municipal mi yëpp teew mu jël enveloppe bu ngandee def ci cent mille kole ko ci saa si da nga ko mën a dajj ba xam lu mu la jox te pourtant na xam seen maire yooyu ñu nekk suñ budget sport daf caa ne seen maire yooyu ñu nekk pourtant suñu ñàqi waajur da cee ne seen maire yooyu ñu nekk alalu peuple bi la mais looy xëccoo nag mu jaral la xeex boo ci jotee sa bopp nga ciy tal moo tax ma téye ñoom ci seeni bagage bi ma nekkee ci ruq bi daal Abdoulaye Diop xaasama woo sama yi fat yi xotteeku woon yëpp moo ko ñëw moo ko ci sant di ko ci ñaanal yàlla bu baax di ci ut ndimbaluk cant yit nag ñu sant le ma ko parce que gis nga Lamine gars yi ràmm ci senegal fi am na de nga toll ci moment boo defee ni doo ci génn nit fekk la fa génne la ci hmm. ràmm na la man nag samay wax bu dee déranger nit ah damay santaat rek borom bu dee neex nit it dañuy santaat borom parce que dañuy jéem rek ndax wax yombut. loolu solo léegi dañ may des ci loolu noonu bébé jën tamit war a taxawaat le 7 bi nii yaakaar naa ne ko. le 7 yàlla na ko yàlla setal ba mu ni wecc le 7 ah, tur bu neex dégg sax nag le 7 at na juróom-ñaari fan la. waaw kon mu lépp war a nekk yërmande la set daal yàlla na ko yàlla setal barke yonent bi. ndax boobaag léegi yaa ngi yaa ngi yaa ngi dem visite wala yéen ngi dégg. ñu ngi déggante gémmiñu wàll gu ma am nag ci wet gu ma ko yaakaar maa ngi ko fay dëpp yuuxu ba ma génneeg léegi dëkkaguñ ma micro ma wax fàtte leen ndax damay doomu gor du ma jàpp di bàyyi Lamine moo tax bu ma jàppee gañe mbaa ma perte ndax du ma jàppantu waaye ku ma cof ma wadd ba ma yëgul rek ma woon la ginnaaw ndax loo am sëñ Tuubaa lu ko boole te fi ko bàyyi gor ñi ñu koy dundee mu dem ba nu macha mm-hmm. allah loolu am na solo ñoo ko déggandoo mu mel ni doy na waar trop trop trop te triste mais keroog mu la fekk stade taxaw ak Gris Bordeaux ak deux wala trois personnes ma ñëw nga ne nga ngay wax ak moom ba ni nañ ma santal kii ak lu làmb yëpp nañ ma santal kii fan nga jaar ak Gris Bordeaux lan nga dund ak moom. dañ ma jàpp ñu woo ko mu njëkk fa ba pare mujj ca. ndax nag bu ko neexoon mu ne Gris dama ko sonaloon sax ci réseaux sociaux yi. Mm. li ma lay wax xam nga ci dara. Mm. ndax samay morom morom bu ñu ma ñemewul rek ma ne Gris Bordeaux Balla Gaye bu ma nañ ma may chance. Mm. du ma leen sax musuma leen dépassé musuma dépassé kenn man signature sax du ma dépassé mbër man damay bañ mbër di wax mbër safaan ndax mooy indi violence bii ñuy wax ndax tey am na loo ñuy waxante ma yow ba ngat-ngat loo rek seen i supporters ci loolu la ñu répété wu. moo tax xaw ma loolu. Gris Bordeaux ñëw taxawuma xam ni sama yaay faatu na nekkuma ak bàyyi li ma doon doon gone samay mag samay rakk man lañ yaakaar mu ñëw taxawuma jëlal ma avocat ànd ak man ci loolu ba bi ki jotee xaalis bari la wàññi jox sama jabar ñawul jabaram ñaw ñaw bu rafet yónnee sama jabar kon kooku ci àdduna bu doon xeex ak ku ma bokkal deret sax moom laay faral dégg nga ma noonu la ma sama borom bindee li may wax Pape Sarr mii toog moo nu yar xam na ma du ma jàpp di bàyyi duma ma ñu ma doon àndal démb bërki démb ba tey ñoom laay àndal xeebu ma ñi ma yàlla jox ndax nag gis nga mun ngaa ëppale say mbokk mbaa nga ëppale say xarit mais boo bëggee saw doxin rawet faaw nga taxaw nekk leen àdduna yàggul bilaay walaay àdduna yàggul. pourtant bu heure bi nga ko waxee moom dafa jàpp ne wareefam rek la def. waaw loolu mu def wareef la ko jàppee. mais am na ñu waroon it te defuñu ko. sonn naa ci ay nit ñoo xam ne defoon naan dinaa leen gis te gisuma leen ndax Lamine dina toll ay moment yoo xam ne da ngay am ñoo xam ne da nga gis nag tedd yoo xam ne donte defuñu la dañuy nekk ci ay quelqu'un yoo xam ne da ngay soo sañoon boo gesoo gis leen mais nga gesu wéet kasoog diisaayam kasoog ni mu méttee moom mu lay lijjanti di la nemmiku jënd ravitaillement yóbbu sa kër def yooyu yëpp ah, wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. su ma defee leneen lu dul ànd ak moom te yàlla rek tax non kon sëñ Tuubaa sax mooy njëkk génn ci man ndax sëñ Tuubaa musta wor bëggul koy wor sëñ Abdul Karim sama sang ba makaarim la ñuy dundloo kon ku ma lebal teraanga ma wax ko ca kaw nodd ko ba wut ñu ma koy noddale ndax ku ko def ku ne bañul ko ko wax. loolu am na solo léegi nag foofu moom yaakaar naa ne mën nañ ko tëj. point boobu mën nañ ko tëj comme ni nga ko waxee rek di ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ñoom ñëpp yàlla génnee leen ci bërëb boobu noonu ci ñaanal tamit ki nga xamante ne moom mooy bébé Diène ak Kaaw Cissé yàlla mi nga xamante ne daal moom moo mën a jëlee foofu nit yàlla na fa yàlla jëlee ñoom ñoo fa nekk ñëpp mais boobaak léegi amagoo combat lan moo tax da nga découragé wala lan moo tax bëre découragé àdduna tollul noonu di maa ngi sama di làmb bu ma dajee génn. wax dëgg yàlla maay entraîné parce que comme yàqal na ma activité yëpp naa ci ne rek ndax mbaam mu yéex te sëf moo gën mbaam mu gaaw te du dara la sëf sànq yaa ngi naan ma lan mooy yeexal yoon wi dundub maam Seera Fall la ñuy dundee mu gis luy waaj a médd ñu maanu maandu tan ba mu dog ñuy doog a jël medd ba waaye duñ taxañ yoonu mukk ndax bëgg gan kum taxa dem ca marché bu ut fa kër ku wàcc xam nga fa ngay jawale. maanaam da nga yàkkamtiwul dara. ah déedéet ndax nag yarewul ni nay ñëw te ànd ak ngërëm nay ñëw te ànd ak teewee nay ñëw te ànd ak san sañ ko rek mm-hmm. waaw waaye bu dee day ñëw fëkk ñu mbaa mu yóbbu nu mbaa mu dindi ñu ci ni ñu mel jëru sax muy ñëw mm-hmm. bu dee ñëw yokk suñu yërmande ñuy dimbali jaam ñi di ci dimbali ko di lu sëñ Tuubaa woote ñu njëkk ci mujj ci na ñëw ak jàmm mm-hmm. waaw léegi même bu dul woon jaar euh, tolof tolof bi nga xamante ne yàlla wàcce woon na ko sa kaw tamit terewul yoon bi ba léegi dafa yeexoon parce que booy xool bébé Saloum fu Ama Baldé tollu ci làmb rek waroon na fa toll wala mu toll fu ko fu ko raw sabab yooyu lan moo ko andi. sama mujjantalu làmb li tax mu nar a neex su njëkkee woon noonu lay neexee muy am naa jàmbaar ñu mel ne Abdoulaye Diop xaas décidé maa jàppale te mi ngi koy dox ak man sur départ bi mu amoon loolu. dana neex ci man est ce que xam nga ne su ma nee la musuma am ci sama combat ku ma may téeméeri junni dama daan wax million million daa sori téeméeri junni doo ko gëm ku ko def na ko wax <laughs> télé moom lu ci waaye di wax da dañuy xëy davanteer la moomoo nit ñi. ak Saloum ni mu yaatu. damay jàmbaari fàkk tëdd may jënd samay billet may samay supporters may togg sama añëru groupement may jël samay kaar te laajal Pape Sarr maire yu mënta dox yi sax dama leen daan génne caaro yi li ma doon traîner ci mbooloo amul sama benn morom bu ko daan te ci kàttanu yàlla su may wàccaat ngay xam ne dinaa wàcc lu ko raw ndax maay mbëru détenu ak mbokku détenu képp kuy mbokku détenu rek actuellement ñu ngi yàkkamti sama combat. Medina dama ko téye léegi dafa jëkk sax ngir lan ni ma jëlee seen doom ji apporté ko ku nekk may woo di ma xaarloo bés. li li yaakaar ci man bañ jiiñ ma ko samay supporters yaakaar ko ci man ba jiiñ ma ko ma yaakaar ko ci sama bopp ba dox jëm ci suma ma ko ñaar ñooñu baalee duma ko baal sama bopp. ñetti fan roi des di nga ko dégg ci man bu dool ci doole Serigne Touba. te yaa ngi ci yoon bi am naa taay bi. am naa aas bi. am naa bëre bi am naa fit jàppale moom moo manqué woon. Abdoulaye Diop xaas yanu na ma te ñëpp nañ ma seen. léegi ci jàppale boobu foog nga bëre ñan nga jàpp ni instant bi ñoom ñu say potentiel adversaire. Malick ñëpp di daw nañ ma ko jox. def na sorte tey nee na même bu nekkee un milliard bàyyi na bëri. moom. ah kon jëratul ñu koy laaj. ki bàyyi bëri moom wax dëgg yàll boo ko dee laaj yaa bëgg te hmm. nañ ma joxe Kili Junior gisul ñu tafaatin may ma sens wala la dëgër de. nga nga toll. yàgg nga ma laaj yàgg naa am ko maa nga laajee ma ko nii it ma wax la li ma lay wax te buñ ca ba ñëw nga ne waxoon nga ko. Hmm. Lamine ñett ñi dàq bëri ci Sénégal ci laa bokk. barki seexul xaddim sama yaakaar. li wax yaa ma ko gën a xam. toll naa ni ñoom. li li ma ñeme sax dama naan ndax ñoom ñeme nañ ko seede yàlla aw luy tiit am naa kersa ba du ma siggi xool nit waaye bu jëflanteeg sama moroomu góor jotee nga xam ne góor du yërëm góor ku dul sëriñ waa dawoo sama yaram. léegi nag gëj bëri dina waral tey boo même bu fekkoon te nga jàpp ni ñooñu ñooy say adversaire sax gëj bëri dina waral tey boo ñëwee nga jël ci xale yi nga xamante ne prouvé nañ am na xale yu fi nekk. waaw buñ ma leen joxee rek tey dox ma xaalis bëri ma jël leen. jëm téere da daan jël li mu daan ko. waaw nga dëgg de damaa daan jat lu mu daan ko waaw bu ma ko joxe xaalis bëri ma jël ko. ah làmb la kay làmb la làmb la de. bu bëggee samedi bu jot ma may ko revanche def ko la ma ko defoon man man maay mbër mi ñu dul ñaan revanche ñaari yoon ku ma daan samedi bu ko neexee samedi bi di ñëw promoteur tax a mayaat la revanche. Hmm? làmboo ñu fi bàyyi tubaalete bi lañ war a ba. di sàmm yàlla ngaan jëmale bu kenn xamul da ngay sonal Abdoulaye Diop xaas ci location loo lekk ak loo naan mais buñ bëree rek am luñ dimbalee ñeneen ñun nañ bërante suñu biir Sa Thiès fi amul combat bëreel na ma deuxième ñaari yoon su ma nee ne war nañoo bëre ku ne na war na ko nangu li wax Pape Sarr mi yóbbu na ma. ba ngay bëree ba ngay bëree garga de bëri na ci moom. de ñaari deuxième la ma bëreel bu ma bëggee ma wax la ko ci nekk ki mu bëreel boo ñaa bëreel na ma deuxième ñaari yoon Lac Rose bëreel na ma deuxième ñaari yoon gone yi maa njëkk a prouvé de ku moom am ndey ku moom ndeyu ji ne ci làmb ji la ñu war a bàyyi rek jox ñu. joxante ñu suñ biir ñu bëree làmb dañoo génne li ci bokk boole ci lu ci bokkul ndax ay comédiens sax léegi <laughs> ñu ngi am barke léegi ci làmbi jàmbur yi. làmb barke. ah mais. mun naa ne de. waaw mu mun naa ne mun naa ne de. Mm-hmm. Serigne ñëpp daal kuñ ma ci joxu ko xaalis mu bëri la te ku mbëri mu ci amuli mbokk ba jël ma. yàlla baax na Lamine wax ji day bëgg di néew léegi jëf ji xaw a bëgg a ndax loolu la mu Abdoulaye Diop xaas digal. yaakaar naa ne ñooñu ay adversaire la Niakhar Ndiaye si Ahmed Dem. xam de ñàkk a taamu adversaire lañ wax di. man bi gaa yi tàdd si muru ngas laa jël ngas. man lu ñu tey laay dee bëgg. yaa ngi may dégg. Mm-hmm. mbër muñ ci waajal te déggoo. maa fi pour ñëpp. bëri rek ama tax a jóg pour dimbali suma njaboot dimbali ñu ma yaakaar ñëpp mm-hmm. waaw ndax li gën a metti mooy yaakaar nit ba yaakaar ci boppam sans borom bañ a antal loolu mm-hmm. ak a metti ci gor mm-hmm. te muy bëreeg Lamine mbër mu ñàkk jom chaque jour mu yóbbu ko top 5 balaa tisbaar mu dëkk ma loxo ñu war a bëri revanche balaa tisbaar dina ma dëkk loxo seede yàlla cinq heures ñu commencé dox combat bi timis day taxaw fu min wi jotee verdict bi wàcc même boo faatoo da ngeen da ngeen di bëre mm-hmm. laajoo ma bën bëri la de. dépense. <laughs> mbër mu ñàkk jom chaque jour ñu daan ko. Mm-hmm. te du tee nga bëriwaat ak moom. Mm-hmm. fu tisbaar jotee ñu commencé dox seen revanche. saan moom déggoo nañ. temis verdict bi wàcc na minuit ngeen jot avance. bëgg bëre bañ bëre. kan la Moussa Ndoye. war na maa may de waaye du ko def ñëwuma gars yi ñëwuñu nag Lamine. coow la fi bëri mais gars yi ñëwuñ ma de seet tët tët nit di ko daan xam ni yow ki daan moo la mën nit billaay di ko daan xam ni ki daan moo la mën xam nga nit daan la nga naan maa ko mën sax dafa safewut safewul ci nopp yow bi koy wax sax da ngay da ngay xaw a niru ko dof da ngay bàyyi ba fayu rek na ma jël amul combat kay na jël. jërëjëf kontaan naa ci yow léegi fi ma commencé woon rek foofu laay jeexal. Hmm. question bu mujj bi ban taxawaay nga fas yéene taxaw ëllëg ndax lu mu ñàkk la ci détenu moo xam yu nekk fii moo xam yu nekk ci yeneen. bu ma yàlla dimbalee ba ma ami teraanga fu détenu dinaa ko fa fekk dimbali ko su yàlla dimbalee ba ma ami teraanga fu nekk dinaa ko fa fekk di leen dimbali la ma mën. maa ngi koy waqirlu ci sans borom moom même kàttan am sañ am mën-mën mu mënal ma lépp ci doole Seexul Xadim ndax nag tàng loxo ca kalambej dama faa jaar xam la fa ne bis yu mag yi day jot nga mel ni bokkoo ci dëkk bi bis yu tedd yi day jot nga mel ni dañ laa supprimer te ci biir ndakaaru ngay nekk te lu fi xew dañ la ko nettali léeg-léeg yi dañuy juum xëy na moo tax ñuy ñaan daal kenn ku ci nekk rek yàlla na sa borom defal la tawféex